yéen a war a saisir le ministère de la justice. ah non xam nga ay wax yoo xam ne vraiment euh, René xam naa ni peut-être il n'est pas juriste ñun yaakaar naa ni lu ñu am ci avocat euh, ñoo xam ne c'est des spécialistes du droit de la procédure. Mm-hmm. ah euh, ñu ñuy conseiller vraiment xam nañu lu ne ci code électoral bi xam nañu en tout cas en matière de procédure te lépp lu war ci procédure. daf nañ ko. Mhm. xam nga lan la c'est très simple. décision de justice am na décision de justice ba notifié nañ ko ñu ñu ko war a notifié juge bi notifié na ko. préfet bi notifié ko au parti agent judiciaire de l'État kan moo représenté woon état du Sénégal ci procès bi du agent judiciaire de l'État. Mhm. notifié nañ ko ko notifié ñu ko préfet bi il représente le président de la République et tous les ministres dans son département. Mhm. le président de la République et tous les ministres y compris le ministre de la Justice hiérarchiquement remonté comme mooy kii hiérarchique c'est le ministre de la Justice le ministre de la Justice il est membre du gouvernement qui est un organe collégial donc waxu tappale yooyu ak waxu euh, jéem a réeral nit ñi parce que amatuñu argument xam nga su fekkee man euh, man côté boobu laa xaw a am euh, un peu de maanaam lu ma xaw a naqari ci comportement wu DG parce que DG communiqué yu muy génnee yëpp amul fenn fu muy cité code électoral. non te code électoral mooy base am may naan article tel article tel article tel waxtaan bi mën a neex. am nañ sax boo xam ne ayib waaw parce que chambre administrative cour suprême. waaw non ñoo ngi dem xam nga boobu man pour man dañu euh, euh, loolu. peut-être pour opinion internationale la euh, seen yenn journaux yi au niveau international mën a relayer loolu pour wane ni parce que seen première communiqué dañ ko génnee mais communiqué bi. amul benn référence amul fenn fu ñu jàppa jafandu ñu ne nag bi yoon il faut ñu am fu ñu jàpp mooy remonter à la décision de la cour suprême de la cour suprême mooy président chambre administrative cour suprême te loolu référé liberté la woon mais décision boobu am na bu ci topp mooy la décision du 12 octobre mhm. du tribunal d'instance de Ziguinchor te kooku moo tranché contentieux c'est le tribunal d'instance mhm. moom moo am compétence en matière de contentieux d'inscription sur les listes électorales te tranché na jël décision am ñëw nañu DG au-delà de notification yooyu mhm. pour signifier leen décision bi huissier ñu ne huissier bi du dugg de 19 octobre huissier bi ñëw na huissier bi ñëwaat na le 20 octobre déjà loolu dañu violé lépp loo xam ne mooy loi réglement ci wàllum huissier te daaf mhm. bu huissier bi demee daaf euh, huissier bi jox na waa daaf waa daaf jël huissier bi dem na agent judiciaire de l'État jox leen ñu jël huissier bi dem na euh, au niveau de également Sénat jox leen ñu jël mais dañu bañ huissier bi signifier leen décision bi ñoom waa DG moom waa DG man moo tax ma ne mhm. euh, maanaam banditisme administratif laa ko tuddee parce que amul benn base légale tey soo demee ci code pénal instant yi waxatuñu sax code électoral dañ koy tegee ne léegi code pénal nañu war a xool. article 106 et suivant mooy lu ñuy naan attentat à la liberté. c' est des et délits contre la constitution chapitre bi loolu nañu wax. DG ci loolu la nekk ni actuellement ak ministère de euh, l'intérieur est-ce que début bi war woon leen a xool euh, ndax Ousmane Sonko mi ngi ci yi d'abord avant ngeen di dem di jëli ji ay fiche de parrainage parce que dañoo gis li ngeen doon def yëpp ay fiche de parrainage ngeen doon wax après démb dégg nañ la bi ngay wax ci saisine yi ngeen def ngeen ne pour euh, liste électorale yeeg yooyu est-ce que loolu du xaw réer ci bopp nit ñi non xam nga xam nga xam nga xam nga ñun Euh, gis ngeen euh, tappale bu amoon yëpp ci radiation Ousmane Sonko ak problème mu notification yi. Mhm. ñu naan ñoo ngi wër Ousmane Sonko gisuñu ko pour notifier ko une décision. Mhm. donc décision bu ñu la notifié wul mënoo ñun nag bu ñu demee ca jour boobu le 29 septembre ba DGE nañu ah du ñu jox fiche de parrainage Ousmane Sonko parce que du électeur. ah te ñun jàpp ni loolu sax c'est pas normal parce que c'est illégal. Mhm. parce que DGE 200 personnes yoo xam ne jot nañu fiche de parrainage ah. 200 est-ce que vérifier na ñooñu ñëpp ndax ñoo ngi ci liste électorale yi vérifié wu ko su dee dañu waxante dëgg. Mhm. donc mais ñu ñu jàpp loolu ñu constaté ko par huissier si base boobu nañu am connaissance ni. Mhm. ah ah ñun kat nee nañu dañu raje sur les listes mais on a saisi les bu ñu saisire tribunal tribunal bi moom lu mu wax dafa leer naññ. annulé na radiation wu Ousmane Sonko ci liste électorale bi te euh, exigé na. nañu delloo Ousmane Sonko ci liste électorale bi ñu ko war a delloo. mais xam nañ leen DG la daaf ministère de l' intérieur suñ ko deful bañ. ba tëdd si suuf. di politique di parparloo. mais amul. amul beneen élément de procédure bi mën a wax léegi daal moo doon recours bi. dem nañu si Sénat léegi gis nañ ni Sénat. dàq nañ ko fa nekkoon ah. Euh, kii la DG. E? nar na substituer injonction na DG war na si substituer ñu Macky Sall dugg ci dugal si loxoom ak ñaari tànkam yi pour <laughs> léegi dàq waa Sénat. indiwaat fi lu bees. donc loolu ça veut dire après c'est clair s'il vous euh, après dégg nga d'accord alors euh, Alpha dafa mel ne euh, dans cette affaire là Sénat DG pour wax ci li xew tey dafa mel ne dañu dañu nekk ci ci ci ci benn match ki war a arbitrer.